bismillahi rahmaani rahim yéen ñi safoo xarala ñu ngi leen di ziar di leen sant di leen gërëm di leen wax dal leen ak jàmm ci suñu tutoriel bu bees tey nag euh, liñ leen indil euh, lu am solo parce que ñu bëri nañuy jàmbat ni seen téléphone euh, dafa yeex trop te tamit ñi ngi téléchargé téléchargé nañu application bu nekk mënul fexe ba gaaw tey nag loolu lañ ñëw pour régler problème boobu sans télécharger benn application maanaam ci ay méthodes yu yomb yu simple lañ ñëw andil leen ko ngeen mën a booster seen téléphone mu gaaw a gaaw bu mel na benn missile buy daw ba pare doo télécharger benn application xanaa loolu garaaw na voilà léegi loolu lañ ñëw seet ko avant tout dama leen di ñaan tamit ngeen abonné ci chaîne bi partagé ko ak seen i amis ok léegi dangay ñëw ci menu par exemple boo ñëwee menu am na fi ñu def paramètre nga dugg paramètre bu dee anglais ñu ngi bind sitting ah nga dugg foofu ok léegi boo ñëwee paramètre da wàcc ba suuf am na fu ñuy def option de développement léegi option développement du probable yëpp moo koy am boo ko gisul sa téléphone dangay ngay ñëw à propos de l'appareil pour indi option développement boo duggee à propos de l'appareil nga ñëw info logiciel boo duggee info logiciel am na yoo xam ni doo agsi fii sax nga ñëw def numéro euh, numéro version gis nga nii boo bësee numéro version sept fois ngay bës mu mu mu activer option développement gis nga mi ngi nii inutile le mode développeur a déjà été activé voilà léegi nga ñëw dugg ci mode développeur léegi option développement nga dugg léegi da seetlu gis nga bu ma bësee téléphone bi temps bi muy jël xool léegi ma arrêté nga xool xam nga gis nga ni mu yeexee nii nga ñëw léegi boo duggee fii nii am na trois options première option mi ngi nii échelle animation fenêtre échelle animation mi ngi nekk un x nga def l' animation est désactivée nga daal koy dindi nga daal koy désactiver beneen mu defal la échelle animation euh, transition nga defaat échelle animation transition l' animation est désactivée bu mujj bi mu mu defal la échelle de durée animateur nga def l' animation est désactivée léegi ñu xool bi ñu ko defee pare ak téléphone bi xool léegi xool gis nga ni taf taf lay def. foo dugg mu génnaat gis nga par rapport ak sànq xool léegi bu ma ko activé nga xool pour euh, pour mu leer ci bopp ni ñu xam ni lii lu pratique la te day gaawal téléphone voilà léegi ñu xool léegi léegi gis nga gis nga temps muy jël pour ubbeeku gis nga ni muy yeexe voilà léegi euh, li moo nekkoon euh, suñu tutoriel tey jariñu ngeen ci bu baax a baax te tamit euh, ngeen abonné ci chaîne bi partagé ko ok merci ba beneen yoon ci yeneen tutoriel